asalaamaaleykum mbokk Sénégal ñu nekk si biir réew bi ak ñu nekk ci bitim réew ñoo ngi leen di nuyu euh, di leen massawu tamit ci li nga xamante ni moom moo dal tey ci réew mi comme ni ko sunu naataango yëpp waxee te noonu ñu ko waxee noonu la ko réew mi yépp waxee ndax bi mbir mi wàccee ba tey sénégalais yi nekk si biir réew mi ak ci bitim réew yëpp ñoo ngi woote.